Mamadou Seck Mamadou Guèye Gaye boobu ñu ngi la war a laaj suñu troisième laaj ci suratu saba baada aoudu billahi min alsheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alladi lahu ma fi alsamawati wa ma fi l ard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 وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها بها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعقب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا wa sadaqa allahu alazim sadaqa allahu alazim macha allah xale boobu doon jàng alquran moom mooy Mamadou Gaye dëkk ba Linguère di doom ci Ousmane Touré wa soxna Daado Touré HLM Grand Yoff Ousmane bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله tari bi neex na yal na yàlla barkeel xale yi di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd Mouhamad Meng di doom ci Dame Meng wa soxna Xawa Meng dëkk Aslim Grand Yoff beneen doom beneen xale bi di tudd Mouhamad Diallo macha allah barakallahu fiikum yal na yàlla barkeel alquran bi toftal ci xam-xam def leen ngeen xale yu mokkal alquran Mouhamad Anne Cheikh Tidiane Sylla Thierno Anne Khadijatu Sana Mbaye di doom ci alxaaji Abdul Aziz mbaay wa soxna Xujja Mbaye iskaat irbam roqiyatu ngom na jege si roqiyatu ngom xale yi di bëgg a yi kenn ki mi ngi tudd Mouhamad Anne di doom ci Ali Anne wa soxna Mam Jaara Fall dëkk Mbàkke beneen xale bi mi ngi tudd Cheikh Tidiane Silla di doom ci Baara Silla wa soxna Mariama Touré dëkk Grand Yoff beneen xale bi mi ngi tudd Cerno Anne di doom ci cheikh omar an bintu ja dëkk fuuta bismillah macha allah barakallahu fikum yal na yàlla barkeel alquran bi ñuy def mawduul quran bi nañu jege si Mouhamad Diaw ruqiyatu ngom di doom ci alxaaji jibi ngom wa soxna yaasin seen iskat irbam bismillah قد وصلنا shaa allah baarakallahu fiik Muhammad Jaw di doom ci Ousmane Jaw wa soxna Mariama Ñang dëkk Kawlax bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل التقوى واتقون يا أولي الألباب لن الشهر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله وإن كنتم من قبله لمن الضالين أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله تربي نحن yal na yàlla barkeel si yàlla teg mokkal alquran teg si xam-xam alxaaji uldu siise omar Diop fatimatu si di doom ci alxaaji cerno si wa soxna madinatu li iskat mama caane jeng di doom ci alxaaji mustapha jeng wa soxna xawa fall HLM Grand Yoff alimatu Ndiaye di doom ci alxaaji Moustapha Ndiaye wa soxna Xadijatu Lay Scat Urbam bismillah أعوذ بالله من الشيطان والحق ذو العفو kunna sadaqallahul allah barakallahu fi kunna alquran bi neex na lool muhammadu makkin na jege si muhammad makkin ka xale yi di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd alxaaji uldu siise di doom ci jabel siise wa soxna sali siise dëkk jàmmkatu Casamance beneen xale bi mi ngi tudd Omar Diop di doom ci Moussa Diop wa soxna maam Faye rahmatullahi alayha dëkk Ndaayaan bismillah ذكرك لعلهم يهتدون حسبكما صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيكما السلام عليكم ورحمة الله ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen siyaara di leen wax ne ñii di bëgg def nag ñoom tariwuñu alquran dafa am benn mawdoo bu ñuy def mawdoo boo xam ne ci alquranul karim ci lay wax mu nekk ay xale yoo xam ne ci daara ji la ñu jàngee ba mokkal alquranul karim continuer fii di fi jàng xam-xam ne ci biir daara ji xale yooyu ñoo leen bëgg a defal benn mawdoo boo xamante ni ci alquranul karim lay wax kon ñu ñëpp ñu bokk xale yi lan la ñuy wax ci alquranul karim te lépp ci daara lañ ko jàngee musuñ génn daara benn yoon am présente kenn ki mi ngi tudd kenn ki mi ngi tudd Cerno Yaxya Li Ñang di doom suñu pàpp suñu sëriñ alxaaji Cheikh Ahmed Tidiane Ñang moo soxna tante Bintu Ñang kenn ki mi ngi tudd Babacar Badiane moom ci daara ji tam la mokkale alquran mi ngi dëkk ba intervene six di doom ci suñu papa alxaaji Omar Badiane beneen xale bi tam mi ngi tudd alxaaji Xasan Ba moom tam ci daara ji la mokkale alquran di doom ci Ousmane Ba kon ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a def mawduu bi nga xam ne moo jëm ci alquraanul karim kon ñu teewlu leen déglu leen bismillah baad audu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alladi faddala bani aadama bililmi walamal ala jamici alaalam walsalaatu walsalaamu ala muhammadin sayidi alarabi walajam wa ala alihi wa asxaabihi yanaabiul ulum wal xikam ginnaaw ba ñu sante yàlla jul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu suñu kilifa yi fi teew ginnaaw bu ñu musoo ci seytaane mi nga xam ne yàlla suñu borom du ko rëbb dàq ci yërmandeem ñuy commencé ci suñu wax ak suñuy jëf ci tudd turu borom nga xamante ni moo xewalee bépp mu def bu nekk ci àdduna ci xewal yu feeñ yi mu jagle ko ñi ko gëm ak ñi ko weddi moom borom bi nga xamante ne tamit moo xewalee bépp jullit bu ko sopp keroog alaaxira ci xewal yi nëbb yi mu jegle ko ñu ko ji ñu sant yàlla mi nga xam ne moo def doomu aadama gën lu dul doomu aadama ci lan ci bi mu def ci moom mu mën koo jëfee ci la def doomu aadama gën lu aadama ci mboolem yi mu bind yi ñi ñaan jàmm ak dolli ko mucc yàlla ci sang arab yi muy sayyidina muhammad ak sang laajkat yi ñi ñaan jàmm ak dolli ko mucc googu yàlla wëlbati ko di nekk ci famille muhammad ak ay saxaabaam yi xam ne ñoom ñooy balluwaay xam-xam bi maanaa ci ñoom la xam-xam jaaree bu mën a egsi ci ngir ñu mën koo jëriñoo ginnaaw bañ sant yàlla jiw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy nuyu suñu kilifa yi fi teew làmb ak suñu papa suñu yaay yi suñu mag yi ba ci suñu rakk yi fi teew ci nuyoo gu sell gi di nuyul islaam nuyoo gi nga xam ne yàlla suñu borom moo ñu ko boole ñi ñaan lim làmboo ci jàmm ak xéwal ak barke yal nañu ko yàlla defal mi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. moom mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo ñuy rafetlu seen teewaay di leen dokkeel ci treizième édition conférence bu Daara El Hadj Cheikh Niang ci Scat Urbam duma leen fàtte présenté sama bopp maa ngi tudd Babacar Badiane di doom Cheikh Omar Badiane ba soxna Khadija Diop dëkk ci daara ji laa jàngee alquran ba mokkal des bi dafi jàng xam-xam tee nañu fas yéene ànd yéen ci waxtaan ba am solo muy waxtaan alquranu karim ànd ci suñuy njàg suñuy ñaari mbokk taalib kenn ki di tudd Cerno Yaxyaali Ñaŋ Ba ñoom tamit ci daara ji lañ jàngee alquran ba mokkal des bi dafa jàng xam-xam te ñu bëgg a waxtaan yéen ci waxtaan alquranu karim ndax alquranu karim dafa nekk xam-xam boo xamante ni moo féete xam-xam yëpp kaw te mooy ndeyu xam-xam yëpp bokk na ci lay tegtaleen alquran waxu yàlla la suñu borom te mooy ndey xam-xam yëpp ndax moo féete xam-xam yëpp kaw comme ni ko borom bu teer bi di ko waxee ci suratul isra baada aoudu billahi min alsheytani irrajim qul la in ijtamaat linsu wal jinnu ala an yaatuu bi mitli hada alqurani la yaatuuna bi mitlih walaw kaana baaduhum li baadin zahira sadaqa allahu alazim moolaana subhanahu wa taala bu tedd bi dafa wax ci alquran muy wax ak yeneen tem bu tedd bi ne ko waxal ne bu nit ñëpp dajale woon ak jinne yi defar lu mel ni alquran mënuñ indi lu mel ni aaya borom bi nee na donte dañuy diisoo di jàppalante di joxante xalaat mënuñ indi lu mel ni alquran alquran googu na dañ fas yéene waxtaan ak yéen tey ànd ci suñuy ñaari mbokku taaliw comme ji bàyyi la ñu présenté wu bismillah Yaxya mushaahiduuna alkiram nuxayikum bi taxiyati alislaam ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi mbokk yi maa ngi lu seen teewaay si bés bu tedd bi te mooy bésu alquraanul karim mbokk yi duma leen fàtte présenté sama bopp maa ngi tudd Thierno Yahya Ly di doom ci alxaaji Cheikh Tidiane Niang wa soxna Fatou Bintou Niang dëkk Scat Urbam si Grand Yoff di jàngee ci daaji alquran ba moo ko si ci atum 2016 des fi di fi jàng xam-xam tey ma fas yéene ànd ak yéen pour waxtaan si wàllu alquran shukran laka yaa Yaxya ñu ngi rafetlu présentation bu baax comme oustaz El Hadj Hassan Ba ñu lay bàyyi nga présenté wu bismillah mushahiduna alkiram nuxayikum bi taxiyati l islam ala waye asalaamu aleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñëpp di leen nuyu ku nekk ak sa tur ak sa di am kontaan nu mag si teewaayu conférence bi muy treizième édition conférence daara alaaji Cheikh Niang mbokk yi du ma leen fàtte présenté sama bopp maa ngi tudd alaaji Assane Ba di doom sox Ousmane Ba wa soxna Awa Ba dëkk Bulyeeri région de Louga jànge naa si daara ji ba mokkalee fi atum 2016 des bi jàngee xam-xam tey damaa bëgg a fas yéene ànd ak yéen waxtaan si wàllu alquran shukran laka yaa alxaaji Hassan Ba ñu ngi rafetlu présentation bu baax comme tey dikkee woon nañu leen ay laaj ci wàllu alxuraan karim ngir laaj leen ko pour ngeen leeralal ñu ko yaa Yaxya sa premier laaj bi ñu lay laaj mooy kayfa maa ya'ti alxuraan yawma qiyaamati li ashaabi naka la alxuraan di dikkee bis penc ngir rama gaa yaa xam ne ñoo ko doon jàng bismillah fa innahu ya'ti yawma alqiyaamati shafii'an li ashaabi kama qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi alxadiis bis penc alquran day ñëw di ramb gaa yaa xam ne ñoo ko daan jàng xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ko waxee mu ne iqra'u alqurana fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashaabi rawahu almuslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ci xadis bi mu naan jàng leen alquran ndax alquran bis penc day ñëw di ramb gaa yaa xam ne ñoo ko daan jàng xadis muslim moo ko ba tey sa laaj bi tontu yi mën nañ kaa jëlee si xadis bi nga xam ne ñu ngi koy jëlee si abdillahi ibni amrin wa bni aas radiyallahu anhuma anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal alsiyaamu walqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama yaquulu alsiyaam ay rabbi manactuhu altacaama walshahawaati binnahaari fa shafficnii fiih wa yaquulu alqur'aan manaatuhu nawma billeyli fa shaffi'ni fii fa yashfa'aan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ci xadiis bi mu naan bis penc koor ak alquran dañuy rëmb gaa yaa xam ne ñoo leen daan taxawee ci àdduna su fekkee jaam bi nga xam ne moom daan na weeru koor boroomam régle ko banal kaadugal safara bu boobaa koor mooy jóg nekk benn jëmmu dem ci boroomam ne ko yow sama boroom sa jàmm bi maa ko daan tere lekk ak ay bànneexam si bëccëgu weeru koor kon maa ngi lay ñaan nga maye ma ramb ko mu dugg aljanna su fekkee jàmm bi nga xam ne moom daan na jàng alquran guddeeg bëccëg boroomam régle ko bana kaa dugal safara bu boobaa alquran gi mooy jug nekk benn jëmbu dem si boroomam ne ko yow sama boroom sa jàmm bi maa ko daan tere nelaw guddi kon maa ngi lay ñaan nga maye ma ramm ko mu dugg aljanna moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ne bis penci koor ak alquran dañuy ramm seeni ñoñ shukran laka yaa yaxya ñu bi bu baax comme ñu sa deuxième laaj maada qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam fi xasad bismillah ba sa laaj bi tontu yi mën nañ ci xadis bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi fay wax ne la xasada illa fisnatayn rajulun aataahu allahu alqur'ana fa huwa yaquumu bihi aanaa alleyli wa aanaa annahaar wa rajulun aataahu allahu maalan fa huwa yunfiquhu aanaa alleyli wa aanaa annahaar rawaahu cheykhaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ci xadis bii mu naan du dagan ñuy ñee si nit ñi lu dul ñaari nit ñaari nit yooyu ku si njëkk mooy waa ji xam ne boroomam wërsëgal na ko alquran mu di ci taxaw di ko jaamu guddeeg bëccëg keneen ki mooy waa ji xam ne boroomam wërsëgal na ko alal mu di ko dépassé si yoonu boroomam guddeeg bëccëg xadis boobu al cheykhaan ñoo ko solo bu nee al mooy albuxaari wa muslim kon yow jullit bi keneen koo ñee ku dul ñaar ñi jàppal ne yaa ngi si lu xaram sukran la ya yaa ñu ngi rafet lu tontu yi bu baax comme alxaaji xasan ba yow tamit digge woon nañ la ñaari laaj ngir laaj la ko ci wàllu alquraanu karim ngir nga leeralal ñu ko sa premier laaj bi ñu lay mooy maada qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam fi man ijtamaa fi baytin min buyutillah yatluuna kitaab allahi wa yatadaarasuunahu baynahum loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tedd bu wax ci ñi nga xam ne dañuy dajaloo ci néegu yàlla bi ba pare jàng fa alquran di ko jàngalante ci seen biir bismillah qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam majtamaa qawmun fi baytin min buyutillahi yatluuna kitaaballahi wa yatadaarasuunahu baynahum illaa nazalat alayhim as-sakiinatu wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaa'ika wa zakarahum allahu fi man indahu rawaahu muslim yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadis bi mu ne ay nit duñ daje si néegi yàlla bi di jàng téere yàlla bi muy alquran di ko jàngale de seen biir lu dul yàlla dafa wàccee si ñoom dal boole si muuree leen yërmanam ji yaatu ji te yërmande yàlla moo gën lépp boo demee si alquran suñu borom subhaanahu wa taala wax na si suratu zuxruf baada auzu billahi min alsheytaani rajim wa rahmatu rabbika xayrum mimma yajmaun am yërmande yàlla moo gën lépp liy sàkkoo am di ko dajale ba tey malaayika yi dañ leen wër di leen ñaanal jéggal boole si yàlla di leen tudd si boppam te tudd boobu dara gënu koo foor comme ni ko suñu borom waxee si alquran suratul ankabut baada auzu billahi min alsheytaani rajim wala zikrullahi akbar sadaqallahu alazim borom bi di tudd jaamam moo gën jaam bi di tudd boromam boobu muslim moo ko solo shukran laka yaa alxaaji xasan ba ñu ngi rafetlu tontu bu baax comme ñëw sa laaj mooy man huwa xayru nnaas ka la yonent bi sallallahu alayhi sallam bu tedd bi wax ne moo gën ci nit ñi bismillah qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu rawahu albuxaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadis bi mu ne ku gën ci nit mooy ki nga xam ne dafa jàng alqur'an ba pare di ko jàngale indi ne si beneen xadis muy wax ne wa qaala aydan xayru nnaasi axsanuhum xuluqan wa an aishatu radiallahu anha xiinama suilat bi xuluqi nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaalat xuluquhu lquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis bi mu ne ku gën si nit ñi mooy ku gën a rafetli jikko jëlee ne si aishatu radiallahu anha jamono bañ ko laajee jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu wax leen jikko yonent bi muy alquran shukran laka yaa alxaaji xasan ba ñu ngi rafetlu tontu yi bu baax comme yaa yaa yaxya ñu ngi lay laaj la nga ñuy wàcc sa mujjantalu kàddu bismillah sa mujjantalu kàddu maa ngi koy tënk si xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi fay wax ne addibu awlaadakum ala thalaasi xisaal xubbi nabiyikum wa xubbi ahli bayti wa qiraati alquran fa inna xamalata alquran fi zillillah yowma laa zilla illa zillu ma anbiyaa'ihi wa asfiyaa'ihi yénte bi sallallahu alayhi wa sallam wax si xadis bi mu naan yéen waajur yi yal leen seeni doom ci ñetti jukko jukko yooy bu ci njëkk mooy ngeen yal leen suñu bëgg seen yénente ñaareel bi mooy ngeen yal leen suñu bëgg fa mu yénente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy yénente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk ak ñetteel bi mooy nga yenn leen si ñuy jàng alquran ndax keroog bis penc benn ker mooy am te mooy keru suñu boroom te suñu boroom day jël gaa yaa xam ne ñoo daan jàng alquran mu teg leen ci kër googu ñu ànd ak yenente yi ak gaa yu sell yi kon yéen waajur yi yenn leen seeni doom suñuy jàng alquran kon loolu moo nekkoon sama mujjantalu kàddu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. comme alxaaji Xasan Ba ñi leen yow la nga ñuy wax ci sa mujjantalub kàddu bismillah sama mujjantalub kàddu maa ngi koy tënk si xadis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis fii mu ne ñun ñëpp ay saamu si si luñ yàlla dénk wayjur saamu la si doomam jëkkër saamu la si jabaram moo tax bis penc bépp responsabilité yàlla dina laaj lu mu la dénkoon noo ko sàmmee loolu mooy sama mujjantalu kàddu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu comme mbokk yi li fi jot a jàllale leen ci suñuy bopp ñu ñaan yàlla mu doole xam gi ak leeru xam-xam gi comme tey li ñu leen indiloon doon leen ko waxtaanale leen ko tëjale ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tedd bi wax ne maa naxala waalidun waladahu afdal min adabin xasanin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tedd bi dafa wax ci xadis ne waajur mënul defal doomam lu gën yar bu rafet comme ñu dégge ci na lu mu ko defal lu mooy yar bu rafet mel na ni defal ko dara lu ñu ci jubloo mooy leeral li ci jub ci yàlla la li ci dëng ci matal doom aadama la in uridu illa al islah mastataat wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jasa dañ ciy jàng alquranul karim li ñu tànn nag mu nekk suñu baas ju fi gën a jàngalee mooy riwaaya warsa waaye jànguñu warsa kese riwaayaat yëpp dañ ko fiy jàng bi maanaam ku bëgg a jàng alquran ci fukki façon ak ñeent fukki riwaayaat ak ñeent yi am ci alquran soo ñëwee ci daara ji mën nga ko fee jàngee riwaayaat boo ci bëgg nag ndax alquran dafa am ay riwaayaat gën caa bëri fukk la ak ñeent riwaayaat yooyu yëpp ci daara ji fii dañ ko fiy jàngee waaye yemuñ ci jàng alquran kese. ku bëgg a jàng France it fii dañ fiy jàngale France gannaaw ba nga paree jàng alquranul karim mokkal bu fekkee ne say wayjur bëgg nañu nga continuer mën nga commencé jàng fii sa fiq naxwu ak lépp lu aju ci wàlli xam-xam rek balaa ko siira xaroot lépp dañ koy jàngale ci daara ji ba ci mantix bi maa naa daal ku fi paree jàng alquran bëgg fee jàngee xam-xam mën nga fee jàngee lépp boo demee ba doyal rek dem waaye sëñ bi moom fa mu yegg yaakaaruma ne kenn dana jàng ba mu ne fi ma yemoon yëg si nga fa waaw muy suñu sëriñ imaam Cheikh Niang kon daara jàngi noonu chaque année nii lañ koy defee dana am ay xel yu mokkal alxuraanul karim war a feeñal seenam njàng bu ko defee ñu boole aale ci yeneen xale yi ñu gungee leen ak it ñi nga xamante ni ñu ngi ci daara ji di jàng xam-xam ñooñu it defaale ay tem kon dégg ngeen xale yi lii ñu doon wax te lépp ci daara ji lañ ko jàngee kon daal daara jàngi noonu yéen ñëpp ngeen bi maanaam daara ji daal li ñu fi bëgg a defandoor xejul ci béréb bi waaw li ñu bëgg a defa ci daara ji xat na xat goo xamante ni xejul ci ci béréb bi kon wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf ustaz Malick Gueye sa wax bi am na solo macha allahu taala jërëjëf jazakumullah xeyran ñoo ngi sant xale yi bu baax a baax euh, ci seen prestation bi ñu def sànq am na solo macha allah di fàttale na ñoom euh, day kañ daara ak alquran kon bismillah ilaha illallah muhammadur yoon te waa daara naw naa leen te waa daara ñee naa leen dama gis ñoom dañoo yaru lool dama gis ñoom dañoo baax lool dama gis ñoom dañoo raw fii

macha allah xale yi fi jàll léegi seen woy bi neex na lool yal nañu yàlla defal dégg Muhammad Makin Ka di doom ci Mor Ka wa soxna Xujja Ka dëkk ba Arafat bismillah a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا حسبك di doom ci Pape Abou Sarr wa soxna Mariama Diop dëkk Arafat beneen xale bi mi ngi tudd Mouhamadou Ba di doom ci Souleymane Ba wa soxna Garmili dëkk Mauritanie beneen xale bi mu ngi tudd Babacar Thiandoum di doom ci Aliyun Thiandoum wa soxna Mariama Meng dëkk cité poste 1 bismillah waaw والشجر يسجدان macha allah barakallahu fiikum yal na yàlla barkeel alquran bi teg si mokkal demba ba yuusufa ñang def lu dul jëlaat beneen xaafis jël beneen xaafis comme niñ ko waxee woon ñeneen ñi jàll ñëpp ay gunge lañuy ñuy doon mais ñi ñooy borom conférence bi moo tax bu dugalee ay gunge tuuti dañuy dugal kenn comme ni maam Modou Gueye jàlle woon sànq euh, Bamba Ñang alxaaji Bamba Ñang di dem ci Omar Ñang ak soxna Fatit Sey Ñang dëkk Madina ci région de Kaolack Ahmed Bamba sa premier laaj di fàttali na Ahmed Bamba riwaaya Hafs day jàng ana asim euh, daara ji euh, li ëpp ci li ñuy jàng mooy riwaaya warsh mais boo fi ñëwee commencé jàng riwaaya beneen euh, nga xaw ca sori duñ la tardeel di la arrêté di la recommencé waatal dañ lay bàyyi rek nga continuer ko am na am ñoo xam ne seen spécialité ci riwaaya xafs la Ahmad Bamba sa premier laaj a'udhu billahi minash shaytanir rajim لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع نحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار كرر الآية قل قد جاءكم رسل الذين قالوا إن الله كرر الآية الذين قالوا إن الله الذين قالوا إن الله دا إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتي يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم وبال قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حسبك Oustaz Ahmed Ahmed Bamba dama lay bàyyi ak Oustaz Babacar Sène mu laaj la sa beneen laaj bi boo gisee ñu arrière ko léegi dafa jaxase foofu tanwin izhar la mu jàngi ko tanwin ixfa première fois bi moo tax bu ñu ko arrière bi mu ñëwee mu euh, jàngaat ko noonu kon ñu bàyyi ci xel ahkam tajwid dafa am solo rawatina ñi nga xam ne nii ñoo dem ba mokkal ñi nga xam ne mokkalaguñ mën nañ ko bañ a mais ñi nga xam ne ñu mokkal lañ duñ leen baal dara bépp bu ñu bàyyi rek incha allah dañ leen di arrêté loolu moo tax oustaz Babacar ñu bàyyi la nga laaj ko deuxième Ahmed Bamba suñu ñaareelu laaj ci yow yaay ñuy jàngal aayaat yi ci suratu Ibrahim baada audu billahi min alsheytaani alrajim alam tara anna allaha xalaqa alsamawati wal arda bilxaq bismillah audu billahi min alsheytaani alrajim ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلى أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم حسبك وصدق الله العظيم صدق الله العظيم بارك الله فيك خالي بوب دون جانغ موي بامبا moom bokk na ci ñi nga xam ne mokkal nañ alquranul karim ba war a jël seen shahada kon ñi ngi koy ñaanal yàlla na yàlla barkeel alquran ji bu defee ñu continuer ci xale yi nga xam ne ñoo leen di gunge bismillah ñaari xale yi di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd Demba Ba di doom ci Fàllu Ba wa soxna maam Faatu Sekk dëkk Kawlax beneen xale bi mi ngi tudd Yuusufa Ñang di doom ci Semu Ñang wa soxna yooni silla dëkk Grand Yoff bismillah auzu billahi minash shaytanir rajim wa laqad ahlakna ma qawlakum minal qura wa sarrafna laayati la'allahum yarji'un ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفعلون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قدروا قالوا أنصتوا فلما قضي والذي لا قومي sadaqallaahul aziim macha allah barakallahu fiikuma yal na yàlla barkeel alquraan bi yal na si yàlla teg mokkal Alpha Cissé Mouhamadou Dramé soxna Zeynabu Diop dëkk Scat Urbam bismillah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 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم صدق الله العظيم xale yi di bëgg a tere kenn ki mi ngi tudd Alpha Cissé di doom ci Ahmadou Cissé wa soxna Jeynaba Cissé dëkk Diamacoto Casamance beneen xale bi mu ngi tudd Mouhamed Dramé di doom ci Babacar Dramé wa soxna Khadijatu Dramé dëkk Parcelles bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم 啊。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 يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم حسبك صدق الله ñaari xale yi di bëgg tari kenn ki mi ngi tudd Mansour Diop di doom ci Cheikh Tidiane Diop wa soxna Ndey Thiam dëkk Amerika euh, beneen xale bi tudd Souleymane Sall di doom ci Ahmadou Sall wa soxna Nene Kali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

kuwe hasbukuma sadaqallahul allah barakallahu fikuma yal na yàlla barkal alquran bi yal na si yàlla teg mokkal alquran Cheikh Tidiane Niang Fallou Seck nañu jege si Abdul Qadir Bari di doom ci aliyun bari wa soxna maryaama jàllo iskat irbam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن yàlla barkeel alquran bi Moustapha Ka na xale yi di bëgg a tari kenn ki mi ngi tudd Cheikh Tidiane Niang di doom ci maam góor Niang woo soxna woo soxna soxna Samb dëkk Afe Jolof beneen xale bi mu ngi tudd Fallou Seck di doom ci Babacar Seck woo soxna Sooda Touré dëkk Scar Urbam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار وإذا يتمتعوا فسوف يعلمون حسبكما صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيكما yal na yàlla barkeel alquran bi yàlla def leen ay magul islaam Moustapha Ka di doom ci Abdul Ahad Ka wa soxna Maam Silla Seck HLM Grand Yoff Maodo Malick Niang di doom ci Momar Niang wa soxna Ndey Mati Niang Scat Urbam Mouhamadou di doom ci Ahmadou Wade wa soxna Fatimatu Sy HLM Grand bismillah

عقول يسرا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى حسبكم صدق الله العظيم jërë ngeen jëf yan na yàlla barkeel seen alquran te def leen magul islaam ñaari xale yi di tari kenn ki mi ngi tudd Mouhamadou Ndiaye di doom ci Babacar Ndiaye woo soxna Kumba Mbeng dëkk Thiès beneen xale bi mi ngi tudd Mouhamad Seck di doom ci Babacar Seck woo soxna faatu Touré dëkk bismillah أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم والتور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء ta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 baarakallahu fiika